koncan Umum jam gadokna Nangadan rer bededeyot dendem ni Fiku fifanan jam yi safo RTS 1 eh? eh, nuyu nañ leen ci ndimbalu yàlla am nañu contentement maak El Ibrahima Ndaw dellu si ak yéen ci seen plateau Sénégal démb ak tey waxtaane rek jaar-jaaru réew mi ci anam yu bëree bari mu mel ni tey El yàlla def na ñu ngi ci suñu juróomeeli at ndax 2019 la ñu commencé émission bi gannaaw ba nga xamante ni amoon na ci ndigal ci professeur Iba Der Thiam yàlla na yàlla saral ay yaxam booba léegi ñu ngi waxtaanee réew mi ci anamu politique ci anamu diine ci anam koom-koom waaye yàlla defal nañu sutura ba yaakaar naa ni musuñ fi wax loo xamante ni danañu ko xeebe wala dañu ko yabe ndax ci réew la nañu bokk te histoire moo am solo waaye wax ci waxin mu rafet waxtaan boo xam wax histoire boo xamante ni day jubale day dimbali day tax ni ñu gën a xam seen bopp xam seen réew walla gën xam gën a fonk seen bopp war loolu bu amee juróomi at ak tey jii dinañ lay sant euh, wa RTS sant bu baax a baax ñi nga xamante ne suñu ay téléspectateurs yi di ay kilifa ku ci mel ne général euh, Meissa Niang yore di grand chancelier de l'ordre ku ci mel ne le ministre Habib Sy tey nekk euh, président directeur général président du conseil d'administration bu Senelec ku ci mel ne professeur Boubacar Diop bi nekk euh, gs ku ci mel ni professeur Mamadou Fall di ay boromi xam-xam xam lool histoire dañuy topp di ñu bégee li nga xamante moom la wax ku ci mel ne Aliou di administrateur administrateur u euh, euh, rob Maam Jaara ak Sénégal yu bëri yu nekk ci diaspora bi di rafetal li nga xamante ni ñoo koy wax gis ci njëriñ ndax réew mi tax ñu koy wax El yaakaar naa ne loolu dafa ñuy jokk ngóora ñu am pas-pas ak yéene liggéeyal Sénégal Elage jërëjëf Atoumane maa ngi nuyu wa téléspectateur senegal RTS ak ñi nekk bitim réew di wax ne ni nga ko waxee noonu rek la demee taarix réew mi dafa am euh, njëriñ njëriñ loo xam euh, émission bi moom lay andi ba ñu mun koo bu baax nekk na ne waxtaan wu ñuy waxtaanee muy dox léegi ci réew mi lu demee ni souveraineté dafa am fu mu jógee ba réew mi yegg si tey jii ñu nekk souveraineté ma yaakaar na donc loolu ci tarix réew mi la bokk ci euh, li ñuy wax éducation civique ci la bokk euh, nit ñi xam seen cosaan réew. jërëjëf ji te nag lu ñu am ay gan ndax euh, duñ ni xale dañ koy jàngal tàggatal ko ndax ëllëg mu xam. réew mi waaye bokk ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk ñu jël ay responsabilité euh, mu am xale yi ay étudiants yu jógee ci euh, centre de référence au métier du tourisme de Saint-Louis ñëw fekk émission bi ñu am fi ay étudiants yu jóge institut supérieur d'enseignement euh, professionnel ISEP de Thiès di ay étudiants bëgg lool cosaan bëgg lool histoire fekk émission bi ñu am aussi ay étudiants yu jógee département patrimoine bu université Gaston Berger bon li lepp lépp ni ñi kat xam nañu bëgg nañu xam réew mi parce que ku xamul sa bop xamul sa dembu fi nga tek sa tank do do du wér motax tay tey élage yi ñu indi ben tembu bu yaakaar naa Sénégal dina leen intéressé moy ñëwub général de Gaulle le 26 août 1958 fi ci Dakar mu am lu bëri lu mu ëmb am lu bëri lu mu jur ak li nga xamante ni tey mën naa wax ni bokk na ci li gën a indi cislaay ba tey ñu am suñu indépendance waaye nag boo nee De ci Sénégal wala De ci Dakar ah ñun li ñu forte woon ci wàllu gëstu gis nañu diggante 1940 ba 1969 bi Senghor bi De Gaulle di bàyyi nguur gi am na ñeent yoo xam te ni ñëw ci Sénégal ñaari ñëw nañu tàcc ko ñaari ñëw nañu ñu yuuxoo waaye loolu lépp allah ji yaakaar naa ni indiwaat histoire indiwaat taarix dina am solo lool pour que mbokki téléspectateurs yi sénégalais yi xam bu baax a baax kan mooy De Gaulle allah ji waaw atumaan ni nga ko waxee noonu rek la demee 26 euh, août 1958 moom la nit ñi gën a fàttaliku loolu benn ci ñëw ñëw euh, général de Gaulle fii ci Sénégal dëgg Rennes, ren dina mot à Ben, fukki at ak juróom-benn fi 26 août 58 Nous na ñeent yoon <coughs> ndakaaru Nous bu njëkk boobu ñu 22 septembre 1940 Nous bi ci topp jaar na fi di dem Brazzaville conférence africaine de Brazzaville ñetteel bi wax nga ko léegi moy 26 août 1958 ñentel bi moy yonom bu mujju moy bi fi ñëwee commencé ndar muy au mois de décembre 1959 ñëw fi ci assemblée nationale tay bobu temps ngi nek assemblée fédérale le 14 décembre 1959 loolu moy ñeenti ñëw yi nga xamné général de Gaulle ñëw na fi té ñëw bu nek amna conséquences conséquence ci réew mi. ak ci Sénégal neena loolu boo gisee ma wax ko mooy du ñuy fàttaliku ndax dama wax ni ñeenti yoon yi ñaar yi duñ ko yuuxoo ñaar yi koo tàccu lu tax ndax bi mu njëkkee ñëw le 22 septembre 1940 tombeek ci suba sa mbay balu Dakar yi tal dal Ndakaaru nekk mun naa wax en guerre le 23 le 24 et le 25 septembre 1940 bombardement au Dakar Bobak léegi tey Nekna, nekk na juróom-ñett fukki at yaakaar naa ne ci ku fi ku ci gaale woon àddina keroog metti na Boisson di gouverneur général moo Dofi Tok Dofi fi toog doo fi dugg ndax duñ Dakar gouvernement de Vichy moom ko Bonang bon nag ànduma ak yow tey te doo fi dugg kaw metti na loolu 1943 waaye 1944 bi guerre bi jeexee de Gaulle war Algérie pour dem Brazzaville jaar na Dakar keroog wàcc na Dakar waxtaan na fa ak waa Ndakaaru keroog nee na ci français ai-je besoin de dire à quel point je suis ému à l'accueil magnifique de Dakar Dakar a montré son cœur kooku boo demee ci Paris Dakar le 27 janvier 1944 di nga ko fa fekk bon nag ñëw na ndakaar Lamine Gueye teeru ko ak ay kilifa diine yu bëree bëri fii ci Dakar bon nag loolu aussi jar naa fàttaliku ak bi nga wax léegi mooy le 26 août 1958 boobu la nit ñi gën a xam waaye ñëwaat na fi en 1959 boobu la mu dikkaatee ci la ñu doon waxtaanee nan la ñu Sénégal war a duggee ak Soudan pour dem ci indépendance. bon nag loolu ay fàttaliku lu am solo élage bu nag loolu bu amee ah histoire di dox te nag loo gis am na lu ko waral am na lu ko sabab ndax de bi muy ñëw ci Sénégal fii ci yan anam la fi ñëwee jamono boobu Dakar euh, Séné euh, France ci yan anam la tooge loolu aussi jar naa indiwaat ñu nettali ko mu nekk lu téléspectateurs yi war a xam waa deuxième guerre mondiale dafa éclaté mun nañ wax euh, en 1939 40 Quand 1940 l'Allemagne dafa ñëw occuper France ba nga xam ne euh, mun nañ France li féetoo bëj gànnaar yëpp euh, Allemagne moo nekkoon zone occupée pareeg yooyu Et ak beneen partie bi régime de Vichy zone libre de Gaulle nag ne moom d'accordul ci daal di dem Angleterre Londres bi mu demee Londres mu oote le 18 juin 1940 ne dafa bugg képp koo xam ne bugg nga continuer di xeex euh, allemand yi na nga ñëw jàppale ko mu toog bu mois de septembre anglais yi ne ko mun nañ la jàppale pour que nga dem uti ji ndimbal ci fi nga xam ne mooy euh, empire français mooy colonie yi yi nekk Afrique ci la ñëwee Ndakaaru bi mu ñëwee ndakaarule vingt 22 septembre ànd ak euh, gaalu Angleterre yi yi nga xam ne yëpp ay gaalu ay croiseur ay torpilleur ay porte avions yëpp mu ñëw ànd ak moom itam ak gaalam yi mu woon gaalu soldaaru marine euh, France ñëw ba fii yegg si yàlla dafa def jamono jooju dafa amoon brouillard bu métti bu wàccoon ci Dakar ba gaal yi mun ñu leen gis ñoom it mënu ñoo gis bu baax dëkk bi nu mu demee ci la ñëw di ut ndimbal gouverneur général bi fi nekkoon nag ne man duma la jox benn ndimbal te doo fi wàcc ci la amee donc balu ndakaar yi parce que dañ commencé gaal yi nga xam ne euh, anglais yi ñoo leen andi ak français yi di tiire parce que dafa amoon batterie bu nekk Cap Manuel ak gore ñoom it canon ya fa nekkoon di tiire ci euh, gaalu Angleterre ak gaalu France li li Angleterre nag ak France doon fayu en tout cas ñi àndoon ak De doon fayu bal yooyu ñoo dugg mbir Médina ak biir plateau yàq fi euh, def fi ay jéye yu mag ba nga xam ne euh, nit ñi daw dem gaar ba daw daw ak seen tànk sare daw ak sareet ak pour génn ndakaaru pour mucc ci ay boobu mm-hmm. loolu mooy ñëwu ndakaaru euh, général de Gaulle bu njëkk loolu am na solo yaakaar naa ni mooy bal yi Ndakaaru dañ ko fàttaliku ba léegi 22 23 ak 24 euh, septembre 1940 yaakaar naa ni Alaaji jamono toll na ci France nekk ci ay jax-jax yu metti nee nañu liñ tuddee woon instabilité institutionnelle diggante gouvernement yi nga xamante ni ñu ngi jaar ci diggante Vincent Auriol ba ci René Coty dem nañu sax ba am na gouvernement boo xamante ni fukki fan ak ñaar la amoon wala juróom-ñaari fan la amoon ndaxte lu ñu jël gouvernement bu ñu tam assemblée bi da tas ko daaneel ko yaakaar naa ne loolu situation boobu indi na ay jafe-jafe lool ci diggante France ak réew yi nga xamante ni moo jokkoon ci ñoom wala moom la colonisé woon ba tax De Gaulle dellu si waat ci pouvoir waaw dafa que ne laata ñu yegg si 4 quatrième république de Gaulle jaar na fi di Brazzaville le 25 janvier 1944. 44 boobu mu ngi conférence bi war am Brazzaville France dafa doon signé charte des Nations Unies bokk ci euh, euh, li déclaration des droits de l'homme euh, ak euh, création des Nations Unies loolu mo waralon mu jaar Ndakaaru di dem Brazzaville ci la ko Lamine Gueye euh, téro ak chef religieux yi fi nekkoon ba mu fa jógee nag e, ñetteel bi liko jitu moy bi loi cadre di am 23 juin 1956 mais loi cadre biñ koy togg di ko di ko di ko appliqué ci Afrique

Euh, juróom-ñaari at lañ ko euh, faloon mais ñi doon dogool dëgg mooy waa président conseil du gouvernement bi ñu ko defee euh, diggante boobu ci lañ wotee loi bi ñuy wax loi cadre loi cadre mooy lan mooy fexe ba nga xam ne réew mu demee ni Sénégal di nga am gouvernement am ay ministre kii jiite gouvernement bi mooy ki nga xam ne moo gouverneur tubaab bi fi nekkoon bi doon remplacé donc bi fa toogaloon France mais ki ki ñu kii adjoint ki ñu teg ci moom mooy ki nga xam ne moo nekk euh, chef majorité et député donc à l'assemblée territoriale mu nekkoon donc Mamadou Dia donc Mamadou Dia ak euh, fukki ministre n'est-ce pas ñoo nekkoon donc gouvernement bi nga xam le 20 mai 1957 dañ ko sas gouvernement Bobo, nag moom moo de Gaulle le 26 août 1958. waaw nee nañu de Gaulle bi bu fekkee bi mi ngi Sénégal dafa en tant que euh, président du conseil René Coty mon ko Dans ndax nee nañu jamono bobu instabilité politique bu metti à ci France peu entre quarante et ak 58 ou wala gouvernement samp na ñu daaneel leen bi mu koy bi ko René Coty di jël dani kii c'est nit ki nga xamante ni moo gën a urus ci France nañ ko woowaat pour mu mën a yëkkatiwaat dara yee France yaakaar naa ne ci anam boobu René Coty woo ko mu nekk euh, président du conseil yaakaar naa ni ci la amee sañ-sañu am ay dogal yu mu war a jël pour xool digganteem mag réew yi nga xamante ni ñoom la France colonisé nan la ñuy doxalee kooku Alaaji loo ci mën a wax. waaw bi mu ñëwee moom nekk président du conseil 29 euh, mai 1958 mu ne dafay andi constitution bu bees daf koy proposer français yi pour ñu xool seen euh, doxalin ak seen diggante ak euh, territoire yi nga xam ne ay colonies la ñoo nekk France nekk Afrique de France euh, y len ah, bi mu proposé référendum bi fekk na nit ñi waxtaan nañ ci seen biir et cetera mu ne nag léegi moom dafay jóg wër euh, dëkk nga pour def campagne pour won leen li euh, communauté franco-africaine parce que référendum bi andi soit nga jël sa indépendance boo boo euh, constitution bi soit nga ne da euh, France euh, nekk den confédération bu ñuy wax communauté franco-africaine ci la loolu moo ko waral mu ñëwaat ndakaaru muy projet de constitution damay fexe ba réew yi am beneen anam bu ñu doxalanteeg France dinaa def référendum boo xamante ni dañ ko wotee le 28 septembre 1958 yaakaar na ci noonu aussi africain yi ci seen gis-gis bu leer jéem nañu xool nan la mën a saytoo lii di ñëw jël ci ay xalaat ba bu dëggool dikkee li mu fay wax dina dëppoo ak seen bëgg-bëgg yaakaar na ne loolu moo indi daje bi ñu ci le 25 26 ak le 27 juillet 1958 euh, ci ñu formé li PARA euh, le parti du rassemblement africain ñu warona a lu 300 délégués de ci Afrique occidentale gi Sénégal yobu fa ay nit Lamine Gueye Demone, Senghor Demone, Mbaye Jacques Diop Demone, Abdoulaye Li Demone, maître Lamine Gueye Demone, Mamadou Dia demoon na ak kii di woon Rose Bass moo leen kon jigéen ji nga xam te moom dong moo ci bokkoon yaakaar naa ni daje boobu élage ci biir Sénégal ak ci biir Afrique am na lu xamante ni xalaatoon nañ ko jëloon nañ ko mu nekk li nga xamante ne mooy seen résolution baa dé dégul li ñu noo ci mën a gisi loolu waaw euh, ni nga ko waxee noonu rek la demee bi bi ñu dajee def congrès de Cotonou 25 26 27 juillet 1958 mon PRA, parti boobu noonu donc regroupement africain des différents territoires délégation Sénégal ak donc li nga une résolution bi nga ne Rose Bass moo ko liir indépendance immédiate nous avons indépendance France que référendum donc bu faites ne euh, dañ koy ci ci territoire yi ñoom noonu la ñuy bi nga xamé ne nag ñibbisi nañ ah fofu nak la commencé am ay coppite euh, ci euh, ci bir Sénégal ci bopam ci kilifa diine yi fi nekkoon ay yeneen kilifa yo xamné vraiment woné nañ né ñom anduñu ci euh, ñu wote non def indépendance immédiate léegi amna na réew réew bu demee ni Guinée Sékou Touré moom daf na won mom waaw xas na décidé ne non lay wote euh, askanam jàppale nañ ko ci peuple am jàppale nañ ko dina wote non pour am indépendance immédiate waaw Alaaji yaakaar na ni avant de di ñëw Sénégal le 26 août boobu di bésub talaata am na réew yu mu jaar ndax périple bi Algérie la déparé bi mu déparé Algérie euh, dem na Fort Lami Tchad le 20 ak le 21 dem na Tanarive Tananarive ci Madagascar le euh, le 21 ak ba le 23 dem Abidjan le 21 ba le 25 dem na Conakry le 26 août avant mon Dakar est-ce que do ñu indiwaatal tuuti taxawayam ak taxaway réew yoy mu andal yoy yoy yooyu ñu xamanteni xamante ni taxaw na fa lan la seen i kilifa waxtaane ak mom waaw bi mu ñëkke Eh, ñëw dëkk bu ñuy wax Fort Lami Fort Lami mooy N'Djamena léegi Tchad eh, ñooñu fa nekk wane nañ ko ne ànd nañ ci eh, référendum bi ñoom wéy lañ nar a woote te itamit ñoom jëlaguñ décision ne dañuy dem indépendance mu dem Madagascar capitale boobu Tananarive lañ ko daan ooyee moom it mu fekk Fulbert Sirana moom moo ko accueillir momit mo mu wax ko ne daal dëgg euh, dina and ci communauté franco-africaine mu jóge fa ñew Brazzaville bu ñew ku ñu wax euh Barthélemy Boganda mom moko ko mo nekkon bu boobu temps euh, chef du gouvernement fofu momit wax lo les même choses mu ñew Abidjan fekk fa Houphouët-Boigny bi mu ñewé nak Conakry mu fekk fa Sékou Touré Sékou Touré nak ne ko daal man daal euh, li ma gënal

wax nga dëgg alaaji parce que bu fekkente ni diggante Tchad ba Konak ba ba ba euh, fii di woon euh, Abidjan nooy na yaakaar naa ni Guinée moom euh, général de Gaulle jëlu fa ndam akay ba ba Sékou Touré toogee dama ko njëkk a wax nous ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à l'indépendance nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage c'est Congo, il y a casque na euh, la France ne s'opposera nullement au choix de l'indépendance que pourrait faire la Guinée en votant non mais que la métropole en tirera bien sûr toutes les conséquences yaakaar ni tontu bobu li ñaan tontu ak euh, wax ak tontu lolu yaakaar naa ni du lu neex de Gaulle ba nga xamanteni euh, le 26 août bobu ca suba la ca suba sa lañ ko tonto ca ngor sa mu war dugg avion wara a Dakar bo nang gis nga mbokk spectateur yi bo gisee ñu indi wat di lepp pour que nit ñi xamanteni lepp lo gis amna lu ko lu ko lu ko ëmb. ndax olof lay wax daal ni bépp tomb buy ratatu datatu dina jaru aw rëdd aw rëdd waaye rëdd woo gis aussi ab tomb la woon buy datatu di datatu di datu ba finalement mu nekk aw rëdd lii bon nag bu fekkente ni ñëw na ba dogal war a egsi Dakar am na luñ ko teeroo am na nu mu dikkee te loolu lépp yaakaar na ni jar naa indiwaat parce que bu mu dikkee aéroport fii ci ñu teeru ko sargal ko

18h30, waron revue de euh, pause de fleurs. Euh, euh, de, h 35 allocution du maire de Dakar, Lamine Gay. 18h40, allocution de Waljo Ndiaye et hein? Gabriel Darboussier. Gabriel à 18h40, 19h, waron Mais le LPLH, avec Dembak, Dikibak, Terubak, il faut des une pour sénégalais xam bu baax a baax ndax loolu bés boobu dafa am lu bëri loo xamante ni indi na ko ci solo ci Sénégal ni mu taxawaatee ba ni mu amee suñu indépendance alaaji waaw dafa nekk ne Sénégal ci boppam gouvernement bi ci jamono jooju parce que ñu ngi jóge woon congrès de Cotonou seen mot d'ordre moo ne woon jot sa réew jot sa réew mooy souveraineté euh, waa PAI ñoom moom sa réew lañ daan wax souveraineté bobu tolloon fo xamné euh conseil de gouvernement bi nga xamné ne Mamadou Dia moo ko jiite ak euh, le gouverneur Pierre Lamy position bi moy Mamadou Dia duko ko dafa démon Suisse Senghor féké woko dafa démon vacances yo ñay lañ yebal ne ko yow demal nga def discours bi téru De

C'est fixé trois objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Oui, L'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas, alors, qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Nous donc au des hommes politiques des hommes d'État africains membres. Mon wax ba paré mom moy jël kàddu gi ci turu Mamadou Dia mi nga xamné moy président conseil du gouvernement ñett yef rek lañuy laaj indépendance immédiate nation africaine moy unité africaine confédération multi euh, euh, avec euh, tous les peuples et la France donc peuple africain yi France mais à égalité lolu moy li nga xamné mo moo mo moo bi nous téye pancarte yi ci nous ci aussi indépendance immédiate nation africaine confédération avec euh, la France et les euh, franco africains coow li nag dafa bari woon trop ba nga xam bi bon daal bu na daal di parce que moo comme président du grand conseil fi nekk assemblée nationale Né bon mu ngi dëggal euh, li nga xam ne le peuple yi di peuple d'Afrique c'est-à-dire daal dëgg-dëgg ñoom daal référendum bugg nañ cee gis seen bopp pour xam naka lañuy ñu mën a moomee seen bopp jot ci seen réew bi De Gaulle di wax nag fekk na coow li bari na yuux yi bari na sifflet yeeg tout ça euh, am na sax ñu doon wax naan dañ la wax De Gaulle tàgg et cetera li daal bari woon na nag daal di xaw a mer waaw daal di daal gis naa ne Ndakaaru dëkk bu yëngatu la wante daal balaa may continuer doo ma wax ñaari baat ak ñi nga xam ne ñooy téye pancarte yi mooy porteur de pancarte yi fala fala expression bi génne ba ñoo xam ne ñoom Baye Jacques Diop ñoo nekkoon jeunes yi ci jamono jooju ñoom Amadou Ndeena Ndaw ak yooyu daal di jël nag tur woowu ne ñoom ñooy porteur de pancarte yi mhm. waaw daal di leen ne boo ngeen bëggee indépendance wote leen jël leen ko Euh, wote len non bu leen neexee wante France da li bu leen di proposé mooy ñu continuer euh, pour mun a euh, dimbalante ba jëm jamono ñuy affaire indépendance. mu ngoog Alhaji mu melni rek la jeunesse sénégalaise a toujours été aux avant-gardes du combat la jeunesse sénégalaise s'est toujours déterminée pour la paix pour la sauvegarde de sa dignité te lolu du tay waaye démb la woon ndax ñii nekkoon porteur de pancarte yi ay étudiants la ñu woon ñi bokkoon ci euh, union des des des des étudiants d'Afrique ñi nekk ay syndicalistes waaye woo xale bu baax ñoom ñëpp ñu ngi woon entre dix-neuf vingt ans ba jàpp trente ans mu wóor la bon nag ndawut tey jii am nañu fu ñu mën a wéeru pour xam ni lépp lu ñu xeex pour jël ko mu nekk ci seen dignité ci réew mi jëm kanam mën nañ ko def waaye bu fekkente ni ànd nañu mu nekk benn doole li koy indi mooy unité bon nag loolu leçon la que histoire toujours duñ ciy retirer dara pour mu jëriñ ñi nga xamante ne mooy tey yaakaar na ne loolu bu mu amee ak coowaloo la ak fëla xóoba dëggoon la ko gën a merloo wax nga ko léegi mooy li mu doon gis gars yi di ko bind nous leen l'indépendance te loolu nag la ko indi mooy ñoom ñi xamante ni ñoo doon wax loolu dafa am fu ñu ko teg mooy résolution bu ñu jëlee woon ca conférence de euh, Cotonou bon nag De ñëw na dégg na gis na ca suba sa di àllarba le 27 ci la départ ñibbi yaakaar naa ne alaaji ba mu demee nag coow desaat na ci dëkk bi ndaxte ñi demoon di. Euh, Euh, Senghor ak Mamadou Dia dellu si nañu ndax ñoo nekkoon les grands responsables du parti UPS ah coow li bëri na nit ñi am na ñu ànd am na ñu àndul loolu yaakaar naa ni war nañ ci dellu si ba xam conséquence yi nga xamante ni moom la fi digal bàyyi gannaaw ba mu demee. waaw boobu temps mun nañu wax ne dëgg-dëgg réew mi euh, jaxasoo woon na ndaxte ni nga ko waxee rek am na ñu àndoon euh, laaj indépendance immédiate am na ñoo xam ne dañ ne woon nañ leen def nànk parce que euh, tollooguñ foo xam ne mun nañu am indépendance immédiate dañ nañ ànd ak France ba ca kanam alors ci biir loolu ci le partie bi nga xam ne moom moo représenté woon donc euh, Sénégal ca PRA ñu ñuy wax IPS te mu nekk parti Lamine partie parti Senghor parti Mamadou Dia parti boobu daal di daje euh, Tëngéej

lolu bi bi décision bobu amé parti bi commencé nek ñaar mo am ci ñoo xamné euh, surtout jeunes yi ak ñi nga xam ne wax élément de gauche ku demee ni Abdoulaye Ly ku demee ni euh, Jaraaf Diouf ku demee ni euh, Latif Camara et cetera ñoom ñëpp Amadou Mahtar Mbow ñi daal né ñom daal ñom duñu duñu continuer di di di di di voter pour ñu voter pour dellusi ak pour ànd ak France ñom daal dañuy laaj indépendance ménage ci lañ beddee ko nag daal di créer PRA Sénégal am ci aussi ay kilifa diine yo xam ne ku demee ni Sëñ Fallou def na déclaration ku demee ni euh, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum def na déclaration ñoo ñëpp ñoom dañ wax ne nañ leen continuer di voter. di ànd ak France nañ leen wote oui euh, parce que dañ déggoon aussi que euh, magu Ndakaaru yi enfin lébu yi France daf leen digoon ne boo ngeen wutee euh, oui euh, nous ferons ba euh, France dina continuer di andak Dakar continuer comme ça yéen ngeen ci Sénégal n'est-ce pas loolu le gouvernement a changé la donc position est ne préconiser oui tax référendum le 28 septembre 1958 oui mon gagné fille ci Sénégal Guinée rek la gagné la gagné loolu am na day indi rek ni euh, diggante li nga wax lépp day war ne rek ni politique ak diine daanañu ànd saa yoo xamante ni intérêt général réew mi dafa taxaw ndax euh, woote boobu ñu woote le 20 septembre 1958 ci Tëngéej ndax bu ñu fàtte ni fii ci Sénégal Tëngéej rek moo fa am salle boo boo xamante ni mënoon na jël lu tolloog 300 personnes. Dakar amu ko woon Ndar amoo ko Thiès amu ko salle Lefebvre bii moom doog moo ko amoon délégué yi dajee fa nekkoon nañu deux cent quatre-vingt-quatre délégués du parti UPS bi ñuy dajee ba waxtaan ñu ne léegi dinañuy tax tax lu ñuy ànd pour wote ñu ànd pour wote wëy nañ taal seen loxo ñu ànd pour wote noo nañ taal seen loxo bi loolu amee euh, ca réunion boobu deux cent quatre personnes ñoo d'accord pour woote wéy treize personnes ñoo wax pour wax non quarante une personnes ñoo abstention war nag gis nga bu fekkente lu ñuy xool rek la règle de la démocratie wax dëgg yàlla ñi ñi wotee pour ñu dem def ànd ak De ñoo ëppoon que ñi nga xamante ne du ñu ànd pour wute na waaye ñi wote non ñoom nañ li ñuy sukkandikoo rek te la ñu waxe woon ca Cotonou loolu duñ ko tembe duñ ci dàkk yaakaar naa ni ni ko indi Amadou bàyyi Jaraaf bàyyi Camara bàyyi dégg ak Abdoulaye indi les signataires mu y a cinquante personnes yoo xamante ni signé nañu ni léegi daal ñoom ñooy pour le nom, ñoo former le PRA Sénégal loolu yëpp ci ay conséquences la waaye ni nga ko waxee léegi fekk na le 12 septembre 1958 sëñ Fallou defoon na déclaration ni fii réew mi toll ñoom ci seen gis-gis mooy ñu def ndànk ba ñu jël suñu indépendance dafay teel sëñ Cheikh Fallou na ko le 15 septembre ca Thiès ca cinéma Agora defar conférence daani moom tamit. Euh, dafay d'accord pour ñu ànd ak France bañ a téere jël suñu indépendance euh, sëñ Baye euh, euh, Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass Cheikh moom aussi defaat na déclaration lu mel noonu boo gisee mag ñooñu waxe noonu yërmande gu ñu am ci réew mi ndax bu ñu fàttali ni El Hadj 1958 Sénégal amagul benn cadre amaguñu école de formation jàngale mi sooxe na. médecine bi sooxe na agriculture bi sooxe na bu ñu jëlee indépendant ci jamono yooyu ñoom li ñu gisoon mooy ñu ngi jëm seen vers ce qu'on appelle l'aventure loolu moo tax ñoom ñu ni njaboot lañu ci ni dëkk réew yépp seen njaboot lañu duñu mën a seetaan ñu dem comme ça rek ci loo xamante ne aventure yaakaar naa ne loolu dafa jar indiwaat du ñu position nag waaye kenn ku ne la nga xamante ni moom la xalaatoon yaakaar naa ne wax ko dafay am solo Banga Kabintini, Kerokbi, l'Olopassé, Banga Ndibi, Khaosor, Kibir, IPS, demeure un référendum. Le référendum a été fait. Nous avons eu 7 471 000 Oui pour le territoire. 1 121 000 ans ont non. Sénégal, 772 000 Oui ont été non.

ci biir communauté bi nga bokk moo le 29 novembre 1958 Sénégal état autonome au sein de la communauté africaine ah euh, ñu ne nag léegi génne leen constitution bu bees constitution boobu moom la ñu wax constitution Mamadou Dia parce que président du conseil moom la moo nekk président du conseil génne nañ tubaab bi euh, Pierre Lamy, mon photographe photo France donc mon chef de l'État mon Mamadou assemblée territoire territoriale de Amon, Sopoline-Bopom, puisque y a eu élections au mois de mars 59 euh, mon assemblée législative et constituante c'est-à-dire moi voter loi moi, je aussi constitution 31 mars 1959 le 2 avril 1959 nous fal Lamine Gueye mu président de cette assemblée législative et constituante ci la njëkkee est président dina ko nekk ba 1968 ni bi at mi muy génn àddina muy Nous ñeenti ñu encore euh, li nga euh, juridique c'est-à-dire le troisième pouvoir bàyyi nañ ko fédération du Mali parce que diggante bi fédération du Mali Sénégal ànd Soudan Soudan boobu tam Soudan français légui moy Mali lënkaloo créé le 17 janvier 1959 fédération du Mali au mois d'avril euh, 59 ñu ñu l'assemblée fédérale du Mali mu nek ici di siège assemblée nationale nek tay def Senghor Mounek, président de l'Assemblée fédérale du Mali assemblée Bobou, Dadi Tabou, fal Modibo président du conseil du gouvernement fédéral du Mali Nous, nous affaire fait demain. au mois de juin 1960 nous sommes donc léegi de l'indépendance du Mali mais le 4 avril 1960 ci a signé. Euh, les accords de transfert de compétences que la France avec le Sénégal accord de transfert de compétences ah, loolu kat moi, c'est compétences France France la communauté France Sénégal dès lors ko jot une seen de souveraineté nationale Nous avons fait l'indépendance le 4 avril 1960 Qui signe kat Mamadou Moumoudou mon rek si woo chef de l'État donc mon suis signé le premier ministre de France Michel Debré donc le 20 juin 1960 l'Assemblée fédérale du Mali à 0 heure le voté la loi de l'indépendance de la fédération du Mali ñaari weer lañ ci juin juillet août 19 au 20 août éclatement la fédération du Mali Sénégal nak légui mom momat na na na fédération du Mali Nous avons fait le 22 août avons voté constitution bu bess né président de la république nous fallait 5 Senghor le 5 septembre 1960 le 7 septembre nous reconduire reconduit Dia comme président du conseil chef du gouvernement n'est-ce pas donc le Sénégal Institutions constitution def les institutions de la République du Sénégal sont le président de la République l'Assemblée nationale et la euh, l'autorité judiciaire Nous noonu noonu la yëf yi demee ba 1960. bon nag gis ngeen euh, mbokki téléspectateurs démarche bi nga xamante ni moom la Sénégal ci la jaar ba ni mu amee boppam. ma waxoon rek ci njëlbéen ni ñeenteelu yoon bi De dikkee mooy bi nga xamante ni élection yi jeex na ba Sénégal ànd ak ñoom ci li ñu tuddee euh, la communauté franco-africaine comité exécutif bi war a dajewaat fii ci Dakar ci loolu la ñëwaatee ci lañ doon waxtaane soloy def fédération du Mali ba nag gis nga ni loolu mooy ñeenteel bi ñeenteel boobu nag bi mu amee daanaka quelques ci président de la république euh, de la France parce que 1958 il était le premier ministre bi nga loolu 59 la le président moo mun wax ni de Michel Debré pour ñu indépendance na de président de la république française ñuy de Gaulle.

Ah, amoon ay kilifa yu baax yoo xamante ni ca jamono boobu ay ndaw lañu fekke woon ko yëkkati woon seen pancarte ku mel ne ñoom Mbaye Jacques Diop ku mel ne ñoom Amadou Ndéné Ndaw ku ci mel ne ñoom Baro Dieng jigéen ñu mel ñoom Awa Guèye Seynabou Lukaar moo nekkoon soxna Racine Ndiaye ak ñu mel Rose Bass ay ndaw lañu woon dem ba ci 1990 ñu daal di seen kuréel tudde ko les porteurs de pancartes Yalla def na def at mu ne bu at bu bés bi dikkee ñu taxaw wax ci dëggoon waxoon ak la jeunesse Sénégal taxawoon takkaw takku nekk benn dànk wane ko li depuis 2011, euh, la mbay Jacques Diop depuis 2011, kuréel boobu mun naa wax ni sooxe na mag ñoom ñëpp dégg mage nañu ñii faatu nañu ma yaakaar ni histoire continuité la te Mbaye Jacques xalaatoon na ni dafay créer lu ñu tuddee les compagnons des porteurs de pancarte ndax daan wax ni lii date bi moomu ma ko dafay date historique bu Sénégal ma yaakaar ni lu mel noonu bu amee ñi nga xam te ne ñoo nekk ay ndoloom ci wàllu politik

au Sénégal loolu nan dama ciy woo ñëpp parce que histoire du Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp loo xam ne day fàttaliku bu rafet lay tëggaat doomu aadama yi day jox xale yi ngóor ak ndaw yaakaar naa ne loolu aussi élage lu jar a bàyyi xel la. waaw 26 euh, août 1958 mooy accélérateur yoon wi ñu topp ba am suñu indépendance moo accéléré. parce que euh, porteur de pancarte yi manifestation yooyu yëf ci kanamu dëggoo won ko ne ñun référendum bi rek doyut ñu ñun dañ bugg mom suñu bop dañ bugg am suñu souveraineté mo waral que bi nga xamé né wote nañ ba euh wuy gagné dañu gaaw li def la communauté rénovée ci communauté rénovée bobu ci lañu def fédération du Mali d'abord abord ñu ne Sénégal état autonome nga am nga donc sañ-sañ def constitution mu def constitution ñu ne que euh bu la neexee nga lëkkaloo ak fédération yi parce que Sénégal problème modi conquête collective de l'indépendance. indépendance bëggul woon rek mom kenn mu dem indépendance daf bëggone and ak yenen territoire yi ñu dem indépendance ndax ñu am doole ci kanamu France moom mooy unité africaine bi ñuy wax panafricanisme bi nga xamé né euh, lëkkaloo nañ ak euh, Mali enfin Mali Soudan français Haute-Volta bokon ci Dahomey bokon ci yo et cetera après mu des Sénégal ak Soudan rek ñu def fédération du Mali ci lañ mëna a wax De Gaulle moy ñeenteelu ñonam bi mu fi ñëw à Saint-Louis le 11 et 12 décembre 1959 ne ko ñun de léegi daal seet nañ ba seet dañoo bëgg a moom suñu bopp dañ bëgg a am souveraineté euh, international donc dañ bëgg a am indépendance le 14 décembre ñaari fan lañ ci teg mu ñëw fii moom de ñëw fii assemblée nationale moo nekkoon Grand Conseil ne ànd na ci laaj yi ko fédération du Mali laaj ak Sénégal ak Soudan ne dañ bëgg a moom seen bopp bon nag ou ubbi négociation yi à Paris à partir du 14 janvier 1960 négociation a eu andi signature accord yi le 4 avril 1960 pour bien montrer que France d'accord na pour jox Sénégal indépendance am moom Nous loolu mooy waral bu xalé yi 26 août ñi nga lim légui ñuy Mbaye Jacques Diop Amadou Ndeena Ndaw Assane mason Diop Rose Bass ak ñoom ñëpp bu nu defuloon loolu xaj na eh, indépendance du teel a ñëw dina ñëw mais du teel ñëw parce que constitution bi loon dara ci benn date mënoon nañ toogaat peut ay juróom fukki at juróom benn fukki at ou téeméeri at encore yoo xam ne dañuy nekk rek eh, ci moomeelu France. loolu am na solo gis ngeen donc déclic bi indi ba tey jii ñu moom suñu bopp ba tey jii réew mi am fi bu toll. dama wax euh, Jacques mi le 11 septembre 2016 2016 ça fait 8 ans célébré wu euh, le 26 août 1958 Bon une date historique histoire du Sénégal l'histoire de parti mais l'histoire du Sénégal l'avenue du général de Gaulle à Dakar kooku kenn mënu koo dindi ci histoire politique gu Sénégal yaakaar naa ne loolu du euh, lu ñaaw du lu bon waaye fàttali rek ni jeunesse bi am ngeen fu ngeen mën a wéewu ndax histoire indi na ko te tey jii ak nu mu ñoo ñooñu nekkoon ay jeunes bokk na ci ñi nga xamante ni bi te yore tabax réew mi tabax nañ ñii aussi di ay ndaw bokk nañ ci nga xamante ni ëllëg ñooy tabax réew mi waaye dama wax rek ni nit ki da tegu ci dara. dëgg lal ko xam-xam lal ko jëf ju rafet lal ko ba ëllëg bu mag ñi wuutee ñi nekk ndaw xam ne ni ñoom kat am na responsabilité bu ñu am ci ëllëg ndax réew mi di Sénégal kenn du ñoo ñoo defal ñu ko nag du chinois yi du japonais yi du anglais yi waaye ñun ci nga xamante ne ñooy sénégalais ay góor ak ay jigéen ñoo koy mën a tëgg ñoo koy mën a defar ëllëg ku dem bàyyi sa moroom mun ko doxal ci anam bu rafet alaaji waaw rôle jeunesse bi dafa am solo trop parce que dañuy faral di wax ne ndaw yi ñoy magu ëlëk ndaw yooyu nonu ñoo don def donc manifestation yi ne doon wax ñoy ñi nga xamné bi Sénégal di sogo mom sen bop bopp ñoo fi nekkoon di liggéey di tabax réew mi di sottil eh, di togg loi yi tax Sénégal mëna jëm kanam mëna mom bopam di doxal li nga xam ne moom la ñëpp doon yaakaar ci wàllu njàngale mi ci wàllu wér yaram ci wàllu euh, euh, koom-koomu réew mi loolu yëpp ña nekkoon ndaw ñooyu ñoo ko doon def mun nañ wax ne euh, xale yi jeunesse yi bu ñu xamee valeur u souveraineté ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu rëyee ni mu diisee Nous avons une valeur boobu du ñu nous mukk seen réew souveraineté indépendance Sénégal indépendance réunion mi et indépendance askan wi te loolu dafa laaj euh, sacrifice pour que réew mi askan wi kanam euh, conseil des nations parce que bu njëkk Sénégal am indépendance euh, le 28 juillet les admettre aux Nations Unies ñu ñuy ñuy mun a dem foofu di fa def déclaration ñaari fan er ca nous le un août euh, ñu contingent euh, armée bu Sénégal mu dem di xeex du Congo sous la bannière des Nations Unies depuis lors musul arrêté. mu comme les enfants duñu fi ñëw nee naa woon ci si njëlbeen am de ñu am étudiants. jóge ci ñi jóge Ndar ñi jóge cees ñi jóge UGB euh, lu ñu leen bëggoon bàyyi rek may leen ñetti question wala ñeenti question ci lii ñu déglu tey ndax dama wax ni ndaw mooy nekk magu ëllëg xëy na am xalaat boo xamante ni wala question yoo xam ne bëggoon nañu leeral leen ko parce que émission bi yaakaar naa ne loolu aussi am na ci solo El alaaji kii de Awa Balde euh, moom dafa bëggoon a xam discours Valdiodio njaay bi ndax am na lu mu ay jeexital ci li nga xamante ni moom moo tax indépendance yi taxaw ci Afrique. waaw mun nañu wax ne Valdiodio Ndiaye bi muy def discours wax na ne defoon nañ congrès Cotonou fàttali na ko congrès boobu moo jëloon euh, résolution boo xam ne. ñetti fànn yi mooy indépendance immédiate nation africaine confédération multinationale avec la France bon mun nañu wax ne ci turu la Cotonou décidé woon moom la wax te loolu parti bi nga xam ne moo umboon territoire yépp dañ ko doon wax PRA euh, yu nekk donc parti yi nekk ci Afrique occidentale française ñoom la waxaloon mais li nga xam ne nag mom la loi cadre andi 23 juin 1956 moy li ñuy wax balkanisation mom mo fédération bi qui ci AOF ko Afrique occidentale française ak fédération bi qui ci Afrique équatoriale française donc du discours bi mo tassaré au contraire discours bi da wax ci tour ñep pour dégaler, parce que ci jamono le gouvernement Sénégal sen ité moy conquête collective de l'indépendance ñëpp booloo dem laaji de indépendance France pour au nom de tous les territoires d'Afrique voilà yaakaar naa ni loolu leer na euh, Habib yow ban question nga poser. lan moo war a nekk C'est le Sénégalais. bi pour nous mën a voilà sur l'histoire du Sénégal en fait voilà kii Habib moom dafa laaj ñoom ndaw Sénégal yi nga xamante ni tey ñoo yore ndono li ndax mag ñee ngi jeex ñoom ñooy ndaw yi seen tànk ci ci ci histoire buñ ko bu ñu taxawoo ci kaw histoire lan la ñu mën a xalaat ni ci la ñu waroo jëfandikoo pour ëllëg réew mi nekk ci naataange est-ce que tey jii li histoire du Sénégal tëddee mën na nekk ci ñoom ay njeexital waaw wala déet. waaw li ko waral mooy 26 euh, août bi ñuy wax étudiants africains yi nekkoon France dañ ko doon fin af ñoo ko sos ñoo njëkk def congrès France ne ñun daal léegi dañuy laaj indépendance France dañuy laaj indépendance pour suñu territoire yi pour suñu réew yi nga xam ne foofu lañ jóge ñoo ko njëkk a sooke bi ñëwee mu am fii li ñuy wax congrès des jeunesse euh, bon, ici, c'était les jeunesses, donc UPS, euh, APRA, etc. cetera. jeunesse nous, ñi nous congrès nous li cest à dañuy indépendance immédiate donc jeunesse a euh, force bi nga ñoo doon pour ñu dem indépendance immédiate et euh bon jigéen ñi aussi mhm. daal di leen parce que wax nañ congrès Cotonou nombreuses Rose Bass mo fa doon wax ci délégation Sénégal yépp daj ne indépendance immédiate donc jeunesse les fers de lance Nous ñi nga nous ñoo doon euh, askan indépendance ci souveraineté internationale

ñëpp ñu saytu li nga xam te mooy ngëneelu réew mi yal na leen yàlla sàmm sàmm réew mi ñu ngi leen jox daje beneen yoon ci beneen émission Sénégal démb ak tey